Euh, boo moytuwul bu amul chance dëggantaan mën naa bañ a participer ci élection présidentielle bi donc nan nga euh, nan nga gisee euh, parcours am jaar-jaaram ak expérience am ak entrave yi nga xam ne. xam nga xam nga loolu daa ñu ma ca gën a placé xam nga ñi mu bokkal parti passif. Mhm. Hmm? moom bi mu jiitee parti bi itam am na ku topp ci moom keneen topp ci keneen topp ca mhm. keneen topp ca bu dee coalition bi bari na ay collaborateurs du dëkk ñenn ci ñi mu bokkal coalition. Hmm? di yeewi di yeewi askan wi ah. waaw ñenn boo ci invité woon kenn di laaj ko question yii ci kooku lay gën a porté ci man. mais yow mii di seetaan actualité. yow mii di man ku leen damay seetaan actualité. yow non mais da ngay waxtaan da ngay waxtaan ci actualité boobu yow mii di kilifa diine. Ah. njabooti ñëpp. Euh, nan nga gisee euh, euh, li nga xam ne moom mooy jaar-jaar Ousmane Sonko ak li ko li ko dal yëpp ak li mu nar a meññ. waaw xam nga ni ma ko gisee mooy li ni ma daan gisee ñi mel ni moom. ñu mel ni moom fi ñu jaar gis nga boo nekkee leader gis nga boo nekkee leader politique mbaa nga nekk kilifa diine wala loo mën a doon hmm? da ngay kii bu cat ñëwee walla nattu da nga koy assumer gisoo ñoom Mandela ak ñëpp gisoo moom yi muy incarné gis nga dafa am loo xamante ni bii un leader fi mu toll boo ko dee ñeewante ba ba nga ñeewante yaayam. njëkk a yaayam ak ay mbokkam ak ay doomam ak ay jabaram comprendre mais moom ci boppam en tant que leader leader en général waaw objectif am fi mu jëm fi mu jëm waaw leader laa la wax de leader fi mu jëm maanaam dara du ko yëngal dara du ko tiital xam nga wax naa ni la il a des man damay préféré man damay préféré dafa am fu ma jàngee dafa fu ma jàngee téere baa ngi nii ci mhm. sama poche droite mhm. ma gis ci axfa shurura axfa shurura mooy yi baaxul nëbbu na axfa shurura ab dal xuyura ab dal xuyura mooy yi baax manifesté wu na feeñ na man toujours toujours damay bëgg damay bëgg di débattre ci yi positif xam nga am na yoo xam ne yéen journaliste ngeen koy wax parce que métier malaaka ngeen yor yéen. métier malaaka. waaw yéen métier malaaka ngeen yor. mooy lan <laughs> métier malaaka. mooy ah, waaw parce que ñun ñi xam nga noonu ku ci nekk gis nga bu buñ nee malaaka rek gis nga buñ nee malakal mawti buñ nee ku xamul dangay ngay def ne benn malaaka mooy wër dara yi ñuy dee déedéet mi ngi mel na nga ni nit waaw bu nee nit moom man Modou Mbacke may mun a. Euh, Ablaye Bone et cetera ñun ñëpp ay nit lañu mais boo nee malaakal boo nee malakal mawti rek defe nañ ni benn malaaka muy wër di rey ñi dee déedéet malakal mawti dañoo am chef chef bi dafa yor ay troupe te duñ juum dañoo am ardoise dañoo am tableau dañoo am foo xam ne bu ñu xëyee dañuy dem dañ leen fay dem ku fu nekk li war a xew ci planète bi yépp kenn ku ne rôle bi nga ci war a jouer ak endroit ba fu nit mën a nekk te ñu war a jël sa roue et cetera comprendre donc. mbirum Ousmane duma ma ci mën a sori. parce que li ma la wax la xam nga nee naa la il a des qualités mais nul ne parfait du ngeen bi wax hmm? loolu tax yàlla nenu nanuy ànd. gisoo même tubaab yi sax gisoo seen coalition yi ñuy def bu ñu bëggee régler benn problème union européenne union africaine et cetera et cetera. maanaam ànd waaw yéenay wax naan union fait la for da jàpp ne dafa war a am ñu mu waroon a lëkkalool. déedéet du question boobu dama la wax ni rek man dama ko suivre xool ko. hey Maïmouna tu es dangereuse. dama ko suivre nee la man toujours maa ngi ci li côté positivité waaw dama ko suivre xam ne borom tawxiid la. tawxiid mooy lan tawxiid mooy kuy bàyyi xel yàlla. Hmm. du wax te tuddul yàlla borom tawakul la itam. tawakul mooy tawakul mooy mooy ku wàkkeelu ci yàlla. ku wàkkeelu ci yàlla ku ci yàlla. parce que boo ko gisee nii buy buy doo ko gis sax muy wax di mer ak lu ñu ko mën di def lu mën a xew lu muy lu muy wax ci dal la koy def.